ok alhamdulilah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala di dellusiwaat ci suñu téere bi nga xam ne moom la ñuy topp muy risaala bu ibn abi zayd alxayrawaani ñi ngi nekkoon ci fanweereelu bunt bi ak ñeent te mooy baabun fil buyu' wa ma shaakala ñu jëloon ci ay bind nag mi ngi noonu jëloon ci bind ba tey ñu ngi war a jàng wa luxumu zawati al arbaa mi ngi noonu min al an'am bu dee yaa ngi yor traduction bu xonq bi yaa ngi ci page soixante-dix-huit bu dee da ngaa yor samaru daani bi yaa ngi page quatre cent quatre-vingt-dix-neuf ci ligne bu njëkk bi féete kaw wa luxumu zawati al arba'i min al an'am wal waxshi sinfun naam waaw kon mbokk ñi ngi sant suñu boroom gannaaw bañ jógee ci jaamu yàlla gu mag gi ñu jaaroon te mooy fukki fan yu tedd yi ànd ak bisu tabaski ba ak la topp ca gannaaw ñu ngi ñaan suñu boroom mboolem lañ ca jaamu woon yal na yàlla nangul ñu ko li nekk kon suñu njëlbeenu dars gannaaw fan yooyu ñu ubbi buntu jëndanteeg jaay doonte ne ni la nga xam ni moom la ca borom téere bi jiital di ibn abi zayd al xayrawani rahimahullah moom mooy li nga xamee ni nii moom mooy aju ci riba ndax am njaay moom ñu ne ñépp xam nañ ko mais li nit ñi dul ràññee mooy lu aju ci wàllu riba looloo tax moom la jëkk a détaillé ci loolu it lay wéy ba tey moo tax mu ne wa luhumu zawatil arbaa ولحوم ولحوم ذوات الأربع lii di yàpp lépp luy doxee ñeenti tànk minal anaami ca jur ga wal waxshi ak ca njaa àll ya sinfun loolu lépp benn catégorie rekk lay doon ay kenn wuru ko teqale benn la mu ni wa luxuumu tayri kullihi sinfun amma nag la nga xamee ne mooy yàpp picc ya loolu lépp benn rekk la wa luxuumu zawaatil dawaabil ma lii di lekki lay dund ca ndox ya kullaha sinfun loolu lépp benn melokaan rekk la wa ma tawallada min luhumil jinsi lépp lu juddoo ci yàpp benn melokaan alwaahid min shahmin te gëres ga fa huwa ka lahmihi moog yàppam baayem wa albaanu zalika sinfun lii di meewu loolu ñuy waxit benn melokaan la wa jubnuhu ak la nga xamee ni nii dafay nekk ci fromage am yaag wa samanuhu ak bëram ya yépp sinfun lépp benn la mbokk kon borom téere bi li muy jàngale fii mooy wàllu riba riba boobi waxoon nañu aram gam aram nga jël or ak or di ko wéccante fekk danga koo ëppalante xaalis ak xaalis naka noonu waaye bu dee or nga yor ki yor xaalis man ngeen wéccante bu dee ne ci place ngeen nekk loolu lay ñëwit ci yàpp yi mu ne kii nga xam ne dafa yor yàpp nag yàpp bëy yàpp giléem wala yàpp kéwél wala lépp loo xam ne day dund càll te ñu war koo lekk yàpp yooyu yépp benn yàpp lañ koy considéré suñ jàppee ne benn yàpp lañ koy considéré loolu li muy jur mooy kenn amul droit di ko échanger di ci ëppalante ñun ñëpp xam nañ yàpp xaar moo gën a cher yàpp nag ndax am nga droit ñëw na waa ji kaay ma jox la ñaari culo ma jox la ñaari culo yàpp xar yow nga jox ma ñetti kilo yàpp nag dañ naan déedéet ndax yàpp xar ak yàpp nag benn lañu ci seen melokaan kon kenn du ko ëppalante moom kay li nga mën mooy jox ko culo mu jox la culo mu ngi noonu bu dee picc yi tamit ñoom ñëpp a yem mooy na doon loolee ganaar yaag na doon loolee naat yaag na doon yooyee kanaara yaag yooyu yëpp seen yàpp benn la kenn wuru koo ëpplente bu dee dañ koy échanger waaye nag comme bokkul ak yàpp ñeenti tànk ah su boobaa mën nañ ko ëpplente mën ngaa ñëw ci waa ji ne ko ah dama fee amoon ñaari kilo yàpp ginaar bëggoon nga jox ma ñetti kilo yàpp nag su boobaa dina dagan ndax yàpp ginaar ak yàpp nag du benn melokaan loolu la ñuy waxe ci liy dund ci géej géej yaboy yaag coof yaag garañ yaag lu mu mën a doon yépp ñoo yem seen yàpp benn la kenn wuru koo gën a lente waaye bu la neexee indi woon ñaari kiloy yàpp xar waa ji jox la ñeenti kiloy jën ndax yàpp xar ak jën bokkul melokaan loolu kon lay wax ni lii dox ak ñeenti tànk yépp benn melokaan la lii naaw yépp benn melokaan la lii dund ci géej yépp benn melokaan la suñu waxee suñu xasee ba wax benn melokaan rek mooy kon buñ koy weccee dafa war a yemoo suñu juuyoo ci melokaan yi su boobaa mënees na koo ëppale waaye charte bi mooy am indi mi ngi noonu mu ne it la ciy juddoo noonu la meewu nag ak meewu xar yépp benn la kenn du ko gënaleen ci lay juddoo ca meew bañ def beurre wala def ko fromage loolu lépp itamit xar baag gilim gaag bëy ba yépp ci yem kenn du ko ëppalante kon loolu lay wax ci aju ci bind bu njëkk boobee su dee dañuy jël beneen bind bi mu ne wa man wa man ibta wa man ibtaa taaman koo xam ne daa jënd ñam fala yajuusu bay'uhu du dagan muy jaay ñam wa qabla an yastawfiyahu gannaaw bu koy jël di ko fat di ko yóbbu ci moomeelam ida kaana shiraa'uhu zalik su dee jënd gëm jënd loolu ala waznin ci ab peese peese la woon aw kaylin wala nat aw adad wala ab lim bi xilaafil juzaaf mu safaanoog loo xam ne dañ koo jal wa kazalika kullu taami naka noonu bépp ñam aw idaamin wala loo xam ne dañ koy rëndoo di ko teg ci ndawal aw sharaabin wala ay naan illa al maa xanaa lu dul ndox kese waxdahu wa ma yakunu min al adwiya loo xam ne dañ koy jël nag di ko fajoo wa zararii lati laa yutasaru minha zeyt ak mbépp façon meññeent ci mbay yoo xam ne kenn du ci génnee ak diw fala yadxulu zalika fi ma yaxrumu min bayi taami qabla qabdihi loolu du dugg ci jaay ñam avant nga koy jël aw tafaadul fi l jins l waxid minhu wala gënalante ci benn en melokaan ci ñoom mbokk kii beneen atte bi muy wax mooy waa ji jënd ñam ci bitig bi ci magasin bi ci marché bi bu dee ñam boobu dañ ko pesé ñu xam ne cent kilo ceeb la wala ñam bi dañ koo wàññi ñu xam ne kat moom jënd na fi masalan lii di fukki xaal wala muy loo xam ne nii dañ ko natt ci ay pot mu ne su booba waa jëkka jënd bala koo jaay na ko jëlee fa mu ko jënde ba pare doo koo mën a jaay waaye doo ko jënde sur place wëlbati ko jaay ko sur place am ci bénéfice te amoo benn effort boo xam ne def nga ko ci amma nag boo ko jëlee ba déplacé ko su boobaa da nga ko mën a jaay loolu lay wax ci nee na lépp loo xam ne it dafay dugg ci lu ñuy rëndoo mooy pataas yaag pombeter yaag ñambi yaag yu demee noonu yooyu yépp boo ko jëndee gàllawaay déplacé ko doo ko mën a jaay mu ne nag bu dee dañ koo jal moom mën nga koo jënd jaay di koy jaay bu dee ne ab jal la nekkul ab lim lu mel noonu it lay wax ci ne su dee ne nag ay yeneen la yoo xam ne du lu ñuy lekk di ko dunde du loo xam ne dañ koy jël di ko teg ñu koy tuddee ay rëndoo di ko teg ci kaw xanaa lu dul façon yeneen yi nga xam ne kenn du ci génne diw ay pepp rek la yoo xam ne nii dub dund lu mel noonu mënees na koo jaay fekk ne jëloo ko fa nga ko jële mënees na koo jaay it fekk ne dañ koy gëñale ci seen biir loolu kon mooy bind boobu bu dee dañu jël beneen bind mu ne wala ba'sa bi bay'i taami alqardi qabla an yastawfiyahu dara nekkul ci mu daa di jaay la nga xamee ni nii da koo leb avant mu koy jële ca fam ko jënde wala ba'sa bi sharika dara nekkul ci nga jëndoon benn mbir ba pare am kenn koo ko bokkal ngir ngeen fay ko wa tawliya wala nga jënd benn mbir ba pare avant nga koy jël nga wax keneen ni moom su bëggee ne dem moom jël ko jënd ko wal iqaala ak la nga xam ne mooy xat ci am njaay loolu dara newu ci fi taamil makil qabla qabdihi lii lépp mën naa nekk ca ñam ba ñuy peser avant ñu koy jël mi ngi noonu mbokk kon day wax fii rek ne moom waa ji jënd ñam bala koo jaay na ko fa jële waaye bu doon dañ ko ko lebal su boobaa moom mën na koo jaay fekk ne jëlewu ko fa nga noonu borom xam-xam yi am na luñ ci wax mooy ki nga xam ne dafa jaay moom dafa ñëw jaay na waa ji waa ji jënd ko su wëlbati koo dem di jaay mën na am intérêt ci kaw borom bitig bi te moom deful effort amma borom bitig bi bu dee daal lebal waa ji moom ma ngi ciy jublu jaamu yàlla intérêt bu mu ca mën a amit loolu du ko déranger moo tax moom mu teqale ki jënd bëgg a jaay sur place ak ki ñi lebal bëgg a jaay sur place ku jëkk ki mu tere ko ku mujj ki mu nangul ko loolee mu ne it nit ki man ngaa jënd benn mbir mbir moomee nga jënd ceeb laam dawlin laam ay lu mën a doon ci ay jur nga wax benn waay na ko soo bëggee ñu dem nga indi ñu fay ko gannaaw ba ñu bokk loolu lislaam dina ko nangu la nga xamee ni it mooy la nga waxaale woon ba dara desul lu dul fay am nga droit gis keneen ne ko lee day waxaale woon naa ko waaye nag boo bëggee yow demal fay nga jël ko loolu mooy tudde tawliya iqaala it mooy lan mooy waa ji jaayoon ba pare daal di réccu ñëw ne kim jaayoon dama bëgg nga delloo ma sama marchandise wala waa ji jëndoon ba pare daal di rëccu ñu naa saway man kat li nga ma jaayoon dama bëggoon nga delloo ma sama marchandise nga delloo ma sama xaalis loola yonent bi alei salaam dañ ci daan ñaax nee na képp koo xam ne jëflante naag mbokk julit mu rëccu ñëw mu xàccal ko lam jëndoonte woon ak ñoom ku mel noonu day yowmal qiyaama yàlla dana ko teggil ay njuum njuum ya nga xam ne defoon na ko te mooy na doon kii jaay ak jënd yépp da ngay gis na loolu lu lislaam ñaaxaate la sa mbokk julit heure bu réccoo ñëw nga teggil ko loolee te loolu mi ngi gën a bari ci ñi nga xam ne dañoo jënd jënd mbir ba pare rëccu mi ngi noonu imma sa xaalis dafa jeex wala sa lu mën a doon mu ne kon loolu lépp da ngay gis ne dana dagan ci am njaay même bu doonte ne yow jëloo ko am nga droit jox ko keneen am nga droit bokk ko keneen ila axiri bu dee da nga jël bind bu ci topp mu ne wa kullu aqdin kullu aqdi bayin bépp contrat boo xamee ni nii dañ koo jëflante ci njaay aw ijaara wala ci loo xam ni koy liggéeyloo di ko fay aw kiraa wala loo xam ne dañ koy def location bi xatr loolee lépp loo xam ne da caa am danger aw xarar wala ak wor fi samni te li nga xam ne moom la ñuy fayee aw aw masmuun wala ca la nga xam ne moom la ñuy jënd ci boppam aw ajalin wala ci dig bañ diggante fala yajuz islam du daganal lool wala yajuzu bay'ul gharar islam du nangu njaayum wor wala bay'u shay'in majhul du nangu ñu jaay mbir moo xam ne kenn xamu ko wala ila ajalin majhul du nangu ñu jaay ci dig boo xam ne kenn xamu ko mi ngi noonu kon mbokk day wax ne bépp njaay moo xamee ne nii ak lor da caa mën a am masalan waa ji tey ñëw di jaay loo xamee ne nii xamaguñu nan lay toll kaa ñu sànni mbaal mi ci géej gi léegi lu mu génn ñu waxaale nga jënd ko te xamuñu lu lan lay génne bépp njaay moo xamee ne nii lañ ko jëndee itamit nekkul loo xamee ne nii lu wóor la masalan jox ma sa nangam sama xar mi réer bu feeñee ma fayee la ko islam du nangu loolu loolu itamit la ñuy wax ca kay jaay te la muy jaay amu ci kóolute ci ne ndax dana ko mën a joxem déet gannaaw ba it bépp dig boo xamee ni nii dañ koy diggee te la nga xam ne dañ koy diggee nekkul ci lu ñu xam masalan yow jaay ma sa lii bis bu diw ñëwee dinaa la fay ci diw mooma kenn xamul kañ lay ñëw islam du nangu loolu amma li mu wax ci njaayu wor moom loolee islam du nangu loolu doonte ne njaayu wor boobu la lay détailleel su dee yaa ngi xool bind bi ci topp mu ne wala yajuuzu du dagan mukk fil ba yoo oy ca njaay ya a tadlis la nga xame ni nii mooy nëbb ayib ya nekk ca njaay ma wala alxish wala wor ca njaay ma te mooy jaxase ko wala alxilaaba wala nax nax gu jéggi dayoo ka ngay jaay wala alxadia ak la nga xame ni nii ba tey it ak wor lay doon ca njaay ma wala kitmaanul uyub wala nëbb ayib ja nekk ca la ngay jaay wala xalatu shay'in bi xalatu shay xalatu daniin jaxase lu ñàkk solo bi jayidi ca la nga xam ne lu baax la wala an yatakallama min amri silatihi wala ngay wax ci sa mbiru marchandisme ma ida zakarahu ci loo xam wala an yaktuma wala boog muy nëbb min amri silatihi ci mbiru marchandisme ma ida zakarahu ci loo xamee ne nii bu ko tuddoon karihahu almubtaa dana ko sib waa ja nga xam ne day jënd aw kaana zikruhu abxasu lahu fi saman wala boog tudd ga nga koy tudd dana wàññi njëgam ba mi ngi noonu mbokk kon day wax ne am njaay kenn wuru ca laxas ak lënt mooy nax waa ji nëbb ca loo xam ne leeraloo ko noonu la l'islam tere al riche te mooy jaxase lu baax ak lu bon na doon am soow la wala doon ak lem la wala na doon lu mën a doon yonent bi alayhi salaam dana wax naan képp koo xam ni dafay wor bokkul ci ñun man ghashana fa laysa minna am na riwaaya bi wax sax danaan man ghasha fa laysa minna kuy wor rek bokkoo ci ñun looloo tax du dagan julit ngay wor xatta la nga xam ne muy ab yéeféer ca loolu itamit da ngay gis lu tasaaroo la suñ jamono yi tey ba tey jii lem yi ñuy jaay ci mbedd mi am na ñu bëri boo leen ko mayoon sax duñ ko naan quatre-vingt-dix pour cent ya dañ koy jaxaseeg loo xam ni ñi ay sump la ñuy jël ñi jaxase ci ay daqaar ñi jaxase ci ay sukkar bu dul jeex ñi jaxase ci leneen ak leneen ba yàgg xam ni nit ñi dañuy wor ci loolu mën naa tax ba koo xam ne warul sax kenn du wóolu am njaayam loolu yi ku miin jëflante yi diw ñor yeeg cër yaag yi deme noonu xam ne loolu du ca jeex rawatina soow yi am na benn quartier bu ñu masoon a nekk am ñu daan jóge fu sori gaare ay oto ndax jàpp nañ ne soow piir la ñuy jaay donte ne xamoon naa ñu dëkk ak ñoom jege leen lool waaye loolu ñu wax amut bu ñu masaan jëlee benn siwa soow piir ca nag ya daan ci rax ñaari siway robinet nit ñi jóge fu sori jàpp naa foofu soow piir rek ma fa nekk loolu mbokk kon du dagan ci njaay amma xilaaba mooy nax gu ëpp ca loolu da ngay gis ni dajeeg benn waay boo xam ne xamul xamul ci règle marché ay mbir yoo xam ne peut-être deux mille francs lay jar yow nga jaay ko ko quinze mille francs loolu fu mu ko waxe rek ñu xam ni ci rey nañ ko ba mu ba mu dee mi ngi noonu mi fàttali suñu benn jigéen daa jógee ca kaw ñëw fii Sandaga ñëw ñu jaay ko benn chaîne chaîne or yi nee ne chaîne or plaqué mu ñëw jënd ko 4000 francs ñoo nag di waxtaan ak waa Ndakaaru yi nekk fii mu ne ah man de dama am benn xéewal benn plaqué or lañ ma jaay 4000 gars yi ne ko 4000 ah loolu mënut a nekk mais gis nga bi mu demee génne chaîne bi nekkati chaîne bi 400 francs lay génne waa ji nax ko ko defal ko ko ci kii bu kii na ko yi 4000 lay jar. loolu nga xam ne ci wàllu xadi ga xadi boobu yi tamit day am ci lu bëri mooy taaral marchandise ba nit ki jàpp ni lii fi gën te loolu sun jamono tey jii mooy publicité publicité marchandise wala tagg marchandise wala nga ñëw ci waa ji ne jaay ma téere bi mu ne la nangam nga ne ko waa defal ma ko dix mille mu ne wallahi la ma ko jënd ëpp ni dix mille bu ko defee kooku moom dootul xalaat di jox la mooy di dix mille ndax nee nga li nga ko jëndee ëpp na dix mille ala kulli xaal loolu da ngay gis ne islam bépp façon naxin boobu da koo tere bokk na nag di ci gën a bari te suñu doom yi di ko jëfee bitim réew mooy li ñu tuddee falas xale yu bari bitim réew ci falas bi la ñuy amee xaalis waaye mbokk loolu daganul te mën ngaa gis masalan benn montre lu mel ne ay Rolex ak yu demee noonu montre bi mi ngi jar cent mille au minimum mais mën nañ ko fals ci zahir kenn du xàmmee te fekk ne ay cinq mille francs lay jar wala trois mille francs su ko defee fals boobu la ñuy dem di ko jaay ñi xamul ay quatre vingt mille ay nangam mille mbokk loolu islam nanguwut loolu bépp façon njaay mu mel noonu islam nanguwu ko gannaaw ba it li muy wax mooy nëbb ayib ca la ngay jaay islam it nanguwut loolu ca loolu dana gën a bari am ñu yàlla nattoo ñuy jaay ay oto wala yu demee noonu nga wóor ne la oto bi dalaa sonal la sonal la sonal li ci nekk ci ay jëfa kenn xamul nu mu toll nga dem tolleri peinture ba mu jekk ñëw benn waaye ñëw oto bi nangam nga tagg tagg ba jaay buux ko ko jaay ko ko mbokk loolu da ngay gis ne islam du nangu ci loolu mukk jullit di def loolu même bu doon da ngay jëflante ak yéeféer ci gàttal mu ne bépp mbir moo xam ne xam nga ko ca la ngay jaay ca mu wóor na la ni ki koy jënd bu ko xamoon du ko jënd wala bu ko xamoon lim la fay du la ko fay daganul yow jullit ngay jëflanteeg ngay jëflante njaay mu mel noonu ba pare waxoo ko li ci nekk loolu waxoo ko li ci nekk déedéet su ko defee kon l'islam li muy bëgg mooy nga leeral lépp loo xam ne nekk ne defoo ca la ngay jaay ka koy jënd bu ko bëggee jënde ko ci ay defoom su ko doyul mu bàyyi ko ngir doyu ko loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax jàpp naa mënees na xool ba xam mbokk yi amu ci woon yenn lu ñuy bëgg laaj bala ñuy gën a sori ci ci dars bi incha allah ci la aju liñ jot a jàng su dee ne am na naam bismillah naam ndax dana dagan li nit ñiy def mooy bu nawet jotee ñu dem waxaaleeg bon borom tool da ko danga may jox nangam ci dugub wala nangam ci gerte ngeen waxaale mu jël xaalis bi jox ko pour kooku bu bayee jox la ko naam loolu dana dagan ci lislaam loolu la ñuy tuddee as-salaf te jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yi daanañ jëflante ci lu mel noonu su ko defee ki nga xam ne moom wóor na ne mi ngeeg ab tool te jàpp nañu ne bu dul ndogalu yàlla kay fii ak nangam tool bi dana ñor mu koy jaay yow am nga droit ngeen waxaale loo xamee ne nii bu ñëwee loolu la lay jox xaalis bi moom nga jox ko ko léegi mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam mu ne lan waaw waaw waaw waaw ah de waaw lay wax ne jën yépp benn melokaan lañu looloo tax jën kenn du ko ëppalante donte nañu ñépp xam nañ ni soo demee ci marché bi kilo coof suñ caam lu muy jar yaakaar na yaakaar naa mën na dem ba six mille wala ah waaw mën na dem ay cinq mille six mille waaye culob yabay ku ne xam ne ne culob yabay peut-être ay mille francs ki deux mille mais ndax dana tax nga ne waa ji dama la jox juróomi culo yabay wala nga jox ma benn kilo coof déedéet su ko defee lu mel noonu heure boo ko bëggee da ngay dem jël say jën nga jaay ko ñëw jënd li kii am heure boo xemme mi la sa mbokk yor échange bi daganul yow da ngay jaay la nga xam ne moom nga bëgg échanger jël xaalis bi jëndee ko ko waaye du dagan ay jëni neen ñu jokkalante ko ëppalante ko comme lañ waxoon it ca yàpp ya yàpp liy dox ak ñeenti tànk kenn du ko ëppale yàpp liy naaw kenn du ko ëppale waaye bu dee dafa wuute rek moom mënees naa def échange bi mën na sa jël jën jënde yàpp jël la nga xamee ni ni mooy yàpp luy naaw jënde jën mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli xaal waaw bismillah waaw waaleykum assalam wa rahmatullah ndax échange yi ñuy wax ne dafay xaram ndax matériel la ciy dugg déedéet matériel lu ci dugg la ciy dugg mooy lekk ak monnaie lépp lu ñuy jëfandikoo ci monnaie muy or ak xaalis ak li taxaw place am wala loo xam ne dañ koy lekk loolu la ñuy tere waaye tey jii am nga droit jël benn portable jox ko benn waay mu jox la ñetti portable am nga droit jël benn oto jox ko benn waay mu jox la ñaari oto wala nga jox ko mu teg la leneen muy lépp loo xamee ni ni moom ajuwul ci lu ñuy lekk ay matériel la su boobaa islam bañul ñu daal di koy échangenté la l'islam di nangu rek nag mooy ne nekk ci tàng ne ci tàng-tàng bi mooy dalay jox nga jox ko mu wóor na la ne échange bi am na waaye du ñu wax naan ba suba ma indi loolu rek dal la ci l'islam di charto wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaw bismillah naam lekk bu fanaan ak bu fanaanul ala kulli xaal lekk bu fanaan ak bu fanaanul ne l'islam li mu xam mooy ndax lekk bi baax na ak baaxut su dee wóor na ne lekk bi bu fanaanee baaxatul amoo droit di ko booleeg bu fanaan bu bu fanaanul te loolu bari nañu bari ci jaaykatu ndekki yeeg jaaykatu kii di ko def da ngay teg sa lekk di jaay di jaay di jaay ba guddi nga daal di jël denc boo xëyee suba toggaat jël la nga desoon démb jaxaseeg lu bees li ci loo xam ne wóor na la ne bu ko kii jënd xamoon du ko lekk ala kulli xaal daal lépp loo xame ñi ni moom wóor na la ne lii day lor la loolee boo ko defee du dagan su doon te ne nag am nga ay matukaay yoo xam ne wóor na leen lekk gi fi nga ko teg ak ni nga ko conservé moog li ñu togg tey amul différence su boobaa islam du bañ loolu waaye lépp loo xam ne mën na jur lor boo ko defee islam du nangu loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam te xam naa njëree it dugal ci benn wane rek ne njàngaleem lislaam nam meloon te jamono yeneen ci baal islam ak ni mu tumurankee tey Omar ibnul Xattaab dafay def inspection biir Madina moom moo nekk buuru jurit ñi da daan bàyyi ba guddi mu jóg di dox li xew ci di xam li xew ci dëkk bi mu romb benn kër dégg benn xale bu jigéen naan yaay ji ay yaay bul njar soomi yaay bul njar soomi mu ne ko waay jógal fi waay mu ne ko ah man dégg naa ci xutba amirul muminin nee na lii yonent bi da koo tere mu ne ko waay amirul muminin nekkul fii fekk Omar mi ngi dégg Omar dem bi mu xëyee suba mu daal di ñëw ci xale yi yi nekk ci këram doom yi mu ne man day kër sàngam jànq sàngam maa ko dégg muy wax ak yaayam di ko tere mu njar soo mi muy jaay ndax amul kenn ci yéen ku ñëw takkal ma xale bu jigéen boobee benn doomam bu ñëw Asim mu ne ko bàyyi bàyyil ma dem takku ko Asim boobu bi mu ko takkee ah doom bañ ca am kooku moo jur Omar ibnul Abdul Aziz mi ngeen dégg nga xam ne mooy dañ naan xalifa yi buñ doon ku leen juróomeel moo leen juróomeel xalifa xulafa rachidun Omar ibnul Abdul Aziz kon surtout Omar direct la mi ngi noonu su ko defee loolu bokk na ci li ñu nettali histoire boobu ca mooy wane ne kon jamono boobu xale yi ñëpp xamoon lan mooy attey lislaam mi ngi noonu ca it gis nga ak ragal yàlla lan la lay jural mooy xale bu jigéen boobu bi mu wéeteeg yaay naan ko yaay bàyyil soow mi ngay rax lii dafa xaraam xamul woon ne loolee mën ko jural sëy mu nar a dem ba jur koo xamee ne nii turam àdduna yëpp xam nañ ko loolu kon bokk ab géndeeku woon la rek incha allah ñu waaw waaw bismillah
ma jaar place am di ko woon samay garab mu ne ma man sawaay dama jënd lem boo xam ne vraiment ndox kese la ko xëy na peut être soo fi ñett xam na rek wala nit yi yëguñu ko man de am naa lem bu may jaay boo ko essayé kooku ko mu ne noonu léegi lem yi daanaka amul prix quoi voilà xaaral après man dinaa la jox santé ko wone sama ko mu xam ne ne vraiment li ma ko bokkul ak limité
ala kulli xaal ba ba àddunay tukki nit ñi duñu yem te boo gisee ñuy bon teral lu bon wala fu lañ naan ñax gu wow day lakk gu tooy moo di ne ne nit ñi dañu dem ba dootuñu wóolu yaakaar naa soo mbokk bi bi daal xam na jaww bi fa nit ñi daan Sénégal yi bëri daje ñu bëri jàpp ne boo fa demee pur ngay am yaakaar naa da ngay da ngay dem fokk fa ñoom it même chose dafay jafe ci situation yooyu nit ñi am kóolute waaye ba ba àddunay tukki du yàlla du dañ mukk di jël ñoo xam ni la ñuy liggéey saytuñu ci lu dul yàlla loolu la ñuy bàyyi ci xel bu baax te loolu dana ma fàttali benn mbokk boo xam ni dafa nekk États-Unis di ma nettali gaa yi farce bi la ñuy jël di ko jaay lu la ñu am ko ci mu am ñaari gaa yoo xam ne yàlla wërsëgal la ñuy dund sunna su gaa yi ñëwee indi ñëw di jëndee seen ay saak la ñuy jaay bu ñu waxee saak bi ñu ne leen saak bi kat nangam lay jar wax leen prix exact bi nga xam ni lu cher la fekk ñee ñu ngi sax saxe fee mais dañ daan toog lu duñu jënd ci yeneen gaar yi la ñu jënd mais nee na dafa dem ba mujj ñu bari ci Amérique yi nga ñëw ci marché boobu ne leen gis ngeen ñaar ñi nekk fi ñoom rek ñooy wax dëgg ci marché bi mujj lañ daan am ñeneen ñi duñ ko am te loolu muy wone wa man yattaqillaha yajallahu makhraja ko ragal yàlla rek yàlla dana ko may kii na am bu dee ne njaay mi doo ci def lu dul lu jub commencement mën nga am problème waaye lu mu yàgg yàgg yàgg njub googu moo lay publicité ba yàlla xëcc di la mi ngi noonu kon incha allah ñu jël bind bi ci topp waaw ala kulli xaal bind bi ci topp moom ay réeglu seen jamono la woon mu ne wa man ittaa abdan ku jënd ab jàpp ab ab jaam fa wajada bihi ayban mu fekk ci ay ayib fa lahu an yaxbisahu wala shay'a lahu bu ko neexee garde ko te dara du ko ñeel aw yaruddahu wala ba mu delloo jàmba wa yaxudu samanahu mu jël prix ba mu joxe woon illa an yadxulahu indahu aybun mufsid lu dul bu dee ne jaam bi ca ba mu nekkee ca moom la ko dale ayib boo xam ne da koo yàq fa lahu an yarjia bi qimati al ayib al qadim su ko neexee mën na delloo jaam bi daal di cay génne xayma ayib ba nga xam ne moo jiite woon awaa mu ñëw ci loxoom ay mina samani ca njëgg aw yaruddahu wala boog mu delloo ko wa yarudd ma naqasa ayibu indahu mu delloo la nga xam ni wàññi na ko ayib bi ba ca moom loolee mbokk jarul commentaire bu bëri ndax kenn jëflantewu ko léegi mu ne wa in radda abdan bi ayibin bu dee dafay delloo jaam ngir ayib boo xam ne dafa nekkoon ca moom waqad istaghallahu te fekk ne moom kat jëfandikoo woon na ko fa lahu ghallatuhu la nga xam ne moom la ko jëfandikoo moom lay ñeel loolee kon mbokk day wax ci wàllu jaam yi bi muy am xëy na liñ ko mën a méngale léegi mooy oto masalan oto ñu jàpp ne kat waa ji daf la jox benn oto jaay la oto bi oto bi bi nga ko ñëwee jëfandikoo ko rek nga gis ci défaut bu garaaw boo xam ne waa ji waxu la ko woon loolu yëpp bu doon charia la ñuy attewoo am nga droit dem delloo ko ab otoom ne ko oto bii kat lii ci nekk waxuma ko woon bu la nee waaw démb ba tey ngay dawal sab oto nag su boobaa loolu da ngay gis ne yonent bi alei salaam dana wax alxaraaj bi damaan waa ji nga xam ne da nga koo jox mbir te leeraloo ko la ca nekk mu gis ay défaut bu ko delloo lam ca jot a jëfandikoo loolee moomeelu boppam la amul lenn loo xam ne lu mu cay fay ci loolu kon loolu la ñuy wax ci wàllu googee suñuy jëlee beneen bind bi mu ne wal bayu alal xiyaar jaiz ñu jaayante ku nekk tànn ci loo xam ne moom ngay xool ci ab diir ndax da ngay wéyal njaay mi am da nga ci dellu gannaaw loolu dagan la isa daraba li zalika ajalan qariba bu dee dañ ko dóoral loolu la nga xam ne mooy dig bu jege ila ma tuxtabiru ila ma tuxtabaru fiihi ca loo xam ne des na ca nattoo ay sayte ca tilka sila loolee nga xam ne mooy marchandise boobee aw ma takunu fiihi al mashura wala loo xam ne dana mën dem diisoo ci ak kenn wala yajuzu naqdu fi lxiyaar du dagan ñuy fay ci jamono bi nga xam ne dañuy def xiyaar ku nekk di xool ndax dana wéyal njaay mi am déet mi ngi noonu wala fi uhdatin salas wala ci loo xam ne dañ koo dig ci lu ñetti fan kooku ma ngay dugg ca njaam ya wala fil mawadaa bi chart ak lépp loo xam ne dañ koo teg di xool ndax ëmb dam ëmbul loolu ma nga ca jaam ya mi ngi noonu wa nafaqatu fi zalika wa damaanu ala al baai la nga xamee ni nii mooy dépense yi ñuy def ca loolee ak kóolute ba ka jaay moom mooy ka nga xamee ni nii moom mooy gàddu loolee mbokk kii beneen bind lay wax mooy lii di jaayu seet waa ji déjà xiyaar dafa am ñaar mooy tànn ci place bi ngeen di jaayante yonent bi alayhi salaam dane albayiaan fi lxiyaar ma lam yatafarraqa ay nit bu ñuy jaayante ci place fii teqili koo wuñu ku ne am nga droit dellu gannaaw ci njaay fekk nga waa ji jaay ay téeréem ngeen waxaale téere bi ñaata cinq mille nga fay cinq mille avant nga fay jóge am na droit ne la hey saa waay man daal téere bi mënu ma koo jaay cinq mille jël ab téeréem yow it am nga droit ne ko ah saa waay man daal 5000 yi daal cher na ci man jox ma saab 5000 fekk teqalikoo wuleen amma bu ngeen demee ba teqalikoo nag su boobaa da ngay gis ne bu dee ne benn défaut amu ca képp koy xàcc day xàcc ngir jublu ci jaamu yàlla wax naa la ko sànq bokk na ci tuyaaba sa mbokk jullit jënd ba pare wala jaay ba pare rëccu ñëw nga xàccal ko njaay moomee delloo ko mu ngi noonu waaye nag su boobaa nekkul force maadaama teqalikoo ngeen mu am nag tey beneen xiyaar waa ji dafay ñëw di jënd oto bi mu ne waa li ñu sarto daal oto bi dafa ma koy jël waaye nag bala maa fay directement danaa ko garder ba ngoon wala naa ko garder ba suba na am wala lépp loo xam ne ni dañ koy jëfandikoo même bu doon te ne kër la nga xam ne ah kër gii nga ma jaaykat xaw mu nu mu demee danaa ko jël nag mais danaa ko seet durée une semaine imma yow sa bopp yaa koy xoolal sa bopp wala nga yóbbu ko ci keneen moom lay tuddee almashura ci keneen koo xam ne moom moo la gën a xam mbir mi nga ne ko ah oto bii kat dañ ma koy jaay damaa bëggoon nga vérifier ma ko ba xam ndax oto bi baax na ak baaxut ak lépp loo xam ne ni rek ab matériel la ordinateur la am lu mu mën a doon am ngeen droit jël ab dig dig boo xam ne nii lu nekk ak lañ koy digal la ñuy diggante ca oto ba mën na uuteeg la ñuy diggante ca portable ba wala mën na uuteeg la ñuy diggante ca kër ga waaye daal muy loo xam ne maaruf la xam nañ ne dig bi daal ñoom ñoo ci d'accord su ko defee bu ñu yeggee ci dig ba imma nga nangu njaay mi ñoo fay wala mbir mi doyu la nga delloo ko loolu kon islam nu nangu lool la lu dul ne dig bi warul nekk loo xam ne nii dig bu jéggi dayoo lay doon mu ne nag su boobaa waaju du fay ay fay bi du nekkul ci moom charte du fay xanaa lu dul ci coobareem waaye ki ñëw di jënd njaay moo xam ne day seet kakay jaay amul droit fayloo ko moom kay dañuy dem ba mu wóor ko leen nag léegi doy na ko ah su boobaa mu doog a fay loolu la wax ca atte boobee amaa li ci tegu comme ni ngeen ko xamee dafay aju ci wàllu ay njaam mi ngi noonu xatta booy bu dee da ngay naam mu ne jamono boobee nga xam ne nag dañoo jël mbir mi di ko waa ji di ko essayer la nga xamee ni nii moo cay feeñ ci ay défaut wala dépense ba nga xam ne nii moo aju ca la ñuy jaay waajay jaay moom mooy gàddu loolu fi yéeg yégguñu ni kay ñëw di ko waxaale pour jënd ko jiggi ne dayoo waaye bu dul looloo kay jaay moom mbir mi mbiram la ba ba ba tey mbiram mbiram la tey masalan bu doon ay daaba la ay daaba la moom moo gàddu ab dundam ndax waa ji jëndagul day xool rek ndax fas bi baax na am baaxul kon moom moo am droit di ko dundal te it mooy garantie bu dee na fas yi dafa dee moom mooy perte ndax waa ji jëndagul lu dul attekat bi am preuve ci ne waa ji moo jéggi dayee ci loolu mi ngi noonu su dee da ngay jëral sa téere di jàng affaire njaam yi lay wax mu ne wa innama yatawaadau li istibra des na teg jigéen ngir xool ndax ëmb nag ëmbul aljaariyata lati lil firaash fil aglab mooy jaam ba nga xam ne dañ koy jël ngir jëfandikoo ko ci kaw lal ya ngir taaram aw lati aqara al baa'i bi wat'iha wala bépp jaam boo xam ni ku ko jaay nangu ñu ne ànd naag moom ci lal mu ne nag wa in kaana waxshan bu dee ne jaam la boo xam ne dafa ñaaw kenn du ko jëfandikoo ci lal wala tajuuzul wa in kaana waxshan doonte dafa dafa ñaaw kenn du ko jëfandikoo ci lal bu nangoo ne ànd nag moom fokk ñu xool ndax ëmb nag ëmbul wala tajuzul baraatu min alhamli du dagan waa ji ne moom kat mucc na ci la nga xame ne nii ab ëmbam fekk na mas na ànd ak moom illa xamlan zahira lu dul ëmb boo xam ne dafa feeñ su dee ne moom daañ boobaa daañ mën a xam ci ëmb bi ci kan la jóge ndax la tax muy wax loolu lépp rek mooy ki am jaam bu dee dafa ëmbal jaam bi jaam boobee dootul dagan mu koy jaayeti ndax dañ koy tudd umul walad mooy yaayu doom bi nga xam ne yaa ko jur mu ne wal baraatu fi rafiqi fi raqiqi jaiza mimma lam ya'lamu al ba'i ka nga xamee ni nii dafay jaay ab jaamit te xamulu ko benn défaut ku mel noonu am na droit ne ah jaam bi ëmbul xamulu ma ko défaut lii lépp mbokk mi ngi noonu wala yufarraq bayna al umma wa waladiha fi l bayi xata yusgira kii jaay jaam fekk muy yor doom doom boobee du ko teqalee ak yaay ji imma mu bokk leen jaay ñoom ñaar ñëpp wala mu bokk leen téye ñoom ñaar ñëpp lu dul ne xale bi dafa dem ba ay bañam commencé foq nga xam ni soxlaatul yaayam loolee kon mbokk moo aju ca wàllu googe nga xam ni comme niñ koy waxee téere bi moon ci yóbbu waaye amul loo xam ne dañ koy jëfee ci sunu jamono yi tey jii jàpp nañ ne mën a santoo dayloo loolu incha allah bu bilal noddee ba pare bu dee am na ci yeneen laaj général incha allah ñu dugal ko ci wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw dafa am benn kër gum dëkkal kër ga seen nekku fa mu am garab gu fa nekk te doom yi bu ñu waddee loole ndax am na droit mu jël ko di ko lekk su dee ne wóor na ko ne doom yi dafay nar a yàqu borom kër ga dafa ñëw mukk di ko witt loole da ngay gis ne dara nekkul ci mu jël ko lekk ko te mooy bépp ñam boo xam ne dafa wadd su boobaa doomu aadama am na droit lekk ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dox na ci mbedd mi ba mujj mu gis benn tàndarma mu yëkkati ko daa di ne ah su ma ragalul woon day mu bokk ci sarax yi dama koy lekk mu jox ko kenn ci sahaaba yi mu lekk ko loolu la daan waxit ci bañ ko laajee fi daalatil ghanam waaw su may dox ci digg àll mu ñu ma gis fa benn bëy wala benn xar waa léegi nan laay def yonent bi sam ne ko ah imma nga jël ko wala till jël ko comme till gi da koo nar a lekk rek yow mën nga koo jël loolu nag mooy ci àll yi nga xam ne àll yu sori yàlla bokkul ak àll yoo xam ne dafa nekk yow ci dëkk bañ ko laajee gileem nag mu ne ah gileem moom mi ngeeg ndoxam mi ngeeg tànkam te gileem moom mën na toog lu mat weer du du lekk du weer du naan te itamit am na kattanu mën a défendre boppam ci bàyyi ma yu bëri ala kulli xaal daal bépp façon ñam boo xam ne dafa nar a yàqu ci xamoo boroom su boobaa lekk ga nga koy lekk nekkul loo xamee ñi nii lu xaraam lu xaraam la bu dee da nga xam boroom nag su boobaa la gën ca la war mooy demal ñaan ko ci ndigal doonte ne ne li nga fekk ci toolu jàmbur nga lekk ko te loolu du tax ñu dagg ci sa loxo waaye bu dee ne waay jàmbur dafa góob am mbayam teg ko nga ñëw tibb ci yóbbu loolee moom islam dafay islam du nangu loolu loolu ñu bàyyi ci xel bu baax naam naam ndax jamono yonent bi dafa amoon kaa bu mel noonu kooku da daan bañ doom yi faru ko ala kulli xaal kaa bu mel noonu mooy garab goo xam ne mi ngi ci kër ca borom nekku fa waaw léegi doom yi moom boo bañee yow far ko noo koy def xamoo borom nekku fa loolu yi ala kulli xaal islam du nangu la nga xam ne mooy ak yàq soo ko xamee daal waroo ko lekk lu dul ci ndigalu borom ca borom boobu itamit même ña jaar ca toolam di lekk ci yëgu ko loolee tuyaabal ju rëy la koy jural yonent bi alei salaam nee na kenn du bay ab tool wala jëmbat ay jëmbat nit jaar fa lekk ca wala bàyyi ma jaar fa lekk ca te même yëgoo ko sax lu dul loolu day nekk sarax ci yow su ko defee kon taral googu ñuy wax ci taral loolee xawma ko ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam islam daal li muy bañ mooy tooñ waaye lislaam it bëggul la nga xam ne nii moom mooy yàq loolee mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw ala kulli xaal su dee ne amul ci kii ñu yokk ci laaj boobu ba tey yaakaar naa yéen a ngi dégg abu xanifa abu xanifa mi ngi tudd nu'man ibnu bashir papaam mi ngi tudd bashir ibnu nu'man abi xanifa dafay dox romb benn tool toolu pom mu gis pom bu rafet mu dagg di lekk bu mujj mu ne waaw man de maa ngi lekk pomu jàmbur ci joxu mu ndigal mu laajte ñu ne ko borom tool bi ni suñ càmm la ma nga fële bi mu ñëwee non li may wax dama juum baayu abi xanifa moom moo defoon loolu baayu abi xanifa bi mu ñëwee ci góor gi na ko fëgg na ko ah góor gi sama bakkan di dafa ma man moo romb sa tool bi dagg fa benn pom ah lekk naa pom bi gannaaw ba nag ma xam ne li ma def jaaduwul dama bëggoon na nga baal ma góor gi na ko ah mën naa laa baal de waaye nag lii po- lii bala ma laa baal dama am fi daal sama benn doom bu jigéen boo xam ne jaaxal na ma lool ku ko takk léegi xaw ma ko léegi nag boo bëggee ma baal la da nga ñëw nga takk ko mu ne ko déet góor gi man ñëw ma pour takk soxna dama bëgg nga baal ma rek mu ne ko ah kon nga dem sa yoon man daal mënu ma laa baal mu ne ko waaw doom bu jigéen bu nekk ci moom mu ne ko daal moom doom bi dafa gumba dafa lu du wax ca dafa la faj tànkam yi du dox mu ne ko ah waaw léegi kooku nu ma koy def hésité hésité mujj mu ne waaw ku mel nii dana dund ba dee ci lu sëy mu ne ko waa d'accord naa d'accord naa léegi baal ma may ma sa doom boobi moom mu ne da ciy def jaamu yàlla ñu nga noonu que lu bari it ci nit ñu jëkk ña la tax ñu daan dugg ci ay sëy mooy dañ daan sëy ngir jaamu yàlla ah ki nga xam ne mooy ah Bachir boobu nga xam ne mooy papa Abu Hanifa bi mu ñëwee ba góor gi wan ko xale bu jigéen bi musul gis xale bu jigéen bu rafete noonu mu ne ko waaw yow sa papa def na ma yow doo gis ca da nga lu ca doo dox mu ne ko ah loolu dala doon lépp ay léeb rek c'est-à-dire que ne ne li mu naan duma gis mooy musuma dem di xool góori jaambur yi musuma sama làmmiñ bi musuma nekk di waxante ak góori jaambur ci waxu caaxaan sama tànk it musuma génn ci kër gi lu dul sama ndigalu papa dox service am ñëwaat loolu moo tax muy wax loolu mbokk kooku sëy boobu mu sëyeeg moom te ba mu koy sëy yàlla rek a tax te la abu xanifa juddoo abu xanifa mooy ki jëkk a nekk yor mazhab boo xam ne nii àdduna bi la ëpp ci gox yi am njàngaleem lañ doon jëfe mooy mazhab abu xanifa gannaaw bala imam malik ñëw shafii ñëw ibn hanbal ñëw loolu mi ngi cosaanoo woon ci daw lekk lu xaraam suñu borom wëlbati ko def def ko loolee di xista boo xam ne nii douanier yeeg policier yeeg gendarme yeeg contrôle des prix yeeg képp ku nekk ci place liggéey nga laay waroon nga dégg xista boobee ba fexe ba sa biir bi doo ci dugal lu dul lu dagan te heure boo dogoo ci loolu la la ci yàlla di fay moo ëpp ay millions wala milliards yoo cay dajale yàlla na yàlla laabal ñu wërsëgal ñu alal ju dagan ca tey musul ñu ci bépp forme riba ca may ñu aafiya fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain